est que tey euh, dañuy jàpp ne Sénégal euh, ñi nga xam ne artiste lañ wala yenn personne wala porteur de voix euh, président de la République bu la recevoir palais rek crime la. xam nga palais bi yow man ñaar ñii ñi ñuy romb nii ñoo koy fay parce que pour nga ñëw vous avez dû acheter de l'essence cette essence il a 18 pour cent qui vont dans les caisses de l'État c'est dans ces mêmes 18 pour cent qu'on prend pour payer ce président ki ñu seeti ñun ñoo koy fay. yaa ngi comprendre. da ngay dem ministre ministère de la justice bu Gambie. <laughs> waaw xëy na ñu wax fa problème bi non c'est que ñiy kaas loolu. waruñu fi jënd saaku ceeb waruñu jënd diwlin dañu war a génn frontière yi dem Gambie di jëndee saaku ceeb foofu parce que loo jënd rek yaa ngi fay président. Mm. loo fay ci wàllum crédit téléphone ci wàllum essence micro bii nii ngeen jënd am na benn taxe bu ci génn di dem di fay président donc ñi di kaas parce que artiste c'est un métier te xam nga lan lañ fa wax. demuñu ñu ne président dimbali ñu dañoo sonn <laughs> ay dañoo xiif ay dañoo mar ay jàppale ñu dañu ne ce secteur là mérite le respect ce secteur s'est battu pour deux alternances xam nga en off am na loo xam ne génnul ci déclaration bi a parlé du président du statut de l'artiste di yegg fin de carrière di ket pour ñu faj ko ñaata artistes ñoo fi gën a àdduna parce que dafa manqué cent mille deux cent mille cinq million tey s'il y a cette question du statut de l'artiste ñuy cotiser pour la retraite et pour la maladie on règle ce problème depuis Père Ndiaga Mbaye ñu gaa yaa ngi doon xeex loolu tey audience bi moo ko réglé parce que après président dafa woo monsieur le ministre Aliou Sow ne ko le statut de l'artiste je veux que ça soit réglé dans le premier trimestre loolu kenn waxu ko xam nga tey quand je vois le discours de Deguety le discours de Rifou moi je suis content on n'a pas baissé nos caleçons ñi nga xam ne dañuy xalaat qu'on a baissé les caleçons c'est parce que ñoom bu ñu ñëwoon ils allaient baisser le ils n'ont pas le courage nous on a osé man dama jàkkaarloo président ne ko votre ministre de la jeunesse est aphone bokkul alors que la jeunesse occupe un important pan képp ku fa jël parole tu as parlé de façon digne Fatah a parlé d'Interscope du modèle Interscope aux États-Unis le gouvernement n'a rien à voir avec la musique parce qu'ils ont créé benn industrie benn rouage boo xam ne musique mooy entretenir boppam ñun loolu lañ fa doon wax maintenant dañuy dem dañuy dem rëbës dañuy ñëw fii on a vu les conditions on va rencontrer le ministre de la justice pour nekko ko les longues détentions préventives il faut que ñu wax ci ces conditions de ces enfants il faut parce que c'est notre rôle ñun tey chance bi ñu am mooy n'importe quel sénégalais mënul dem dugg biir ministère mais baxaaw mii bu demee ministère ñu ne ministre bi baxaaw moo nekk ci suuf da koy wax yéegal parce que c'est Bakao a battu, il s'est battu pendant 30 ans pour avoir cette image et ce respect-là. Ce l'a. Ce pas un président qui va nous le, nous, nous le qui. Ni. maa ngi fàttaliku jamono doon wax Omeram oh, doo nekk ci town di round man 98 laa njëkk def kaso au secours waa réew mi ñoo ngi dee au secours sàccee politicien yaa ngi ñuy rey police fekk ma ci seen wàccee ma di ma pompeloo ñu yóbbu ñu 100 ñu yóbbu ñu astafurlah central

reveniraat ci journée bi à part le ministre de la justice <laughs> à part le ministre de la justice aussi femme mun ngeen ko interpeller aussi sur le sort de ces femmes parce que ay xale ak ay soxna ñoo. on va interpeller tout le monde on va interpeller le président de la république on va même interpeller les les les les différents consulats qui sont là parce que dafa am yoo xam ne c'est pas humain. aujourd'hui tey je damay continuer rek si moom tey pour wane ne que. Euh, àdduna bi ñu nekk bii surtout Sénégal dëkk la boo xamante ne jàmm rek moo fi mën a am ci lépp jàmm rek moo fi mën a am ci lépp euh, tey si biir fii tu vas voir benn frère bu nga xamante ne mooy suñu maire Sicap tu vas voir maire Sicap bi fiy nekk Pastef la bokk dina am ay homme d'état yu fi nekk yi nga xamante ne si beneen parti politique la ñu bokk ay footballeur dinañ fi nekk ñëpp dinañ fi nekk c'est-à-dire que moment boobu fii kenn moom ko moment la boo xamante ne ñun ñëpp dañ fiy daje. muy politicien bi muy sportif bi muy footballeur bi muy muy muy muy muy élève bi muy étudiant bi ñëpp fiy nekk dañ fiy daje benn intérêt moo ñu fi mooy naka la ñu mën a distraire ñi nga xamante ne caabi di leen féetee ginnaaw pour man ay audience dem palais boobu noonu c'est pas benn question ne ko dem nañ palais rek oh, dañu war a dee du crime du pour man logique la ñu dem palais parce que ay sénégalais lañ quand même que ay sénégalais lañ te Macky Sall c'est notre président on est di d'y waaw mais gars yi wax nañ lépp comme lu ñuy wax rek dafa am xam ne moom bu fekkente ne euh, dañuy dem comme li comme li Simon wax rek dem palais nga président de la république am na ay conseillers am na ay euh, am na am nañu euh, palais na député yi ngi fi war a wax mais dëggat yi li mu wax président bi je pense que palais discours yi ñu fa tenir kenn mosu ko fa tenir foofu noonu. xam nga dëggat yi bu taxaw ne président bi say député ñun ñoo leen gën a fiable loolu doo ko wax njiit donc mais ñun noonu lañ mel te te li ñu ko wax loolu lañ gëm. député yi nekk Sénégal ñun ñoo leen ëpp ñun ñoo leen gën a ñun ñoo leen gën a en fait ñoo leen gën a ñun ñoo leen réew mi sax laay wax quoi parce ñun kenn fayuñu pour ñu def li ñuy def kenn yónni wuñu pour ñu def li ñuy def dañuy xeex ba ñuy dee bu ñu dee dañuy fàtte rek ngeen continuer xeex bi mais dara jàmm rek ci Sénégal voilà